salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi suivre seen site internet bi di mourides point info gin comme ni leen ko yàgg di waxee nag ginnaaw bu portrait bi jàllee ba léegi yéen ngi seen biir émission koor gi ak Ndeye Thiam Saliou tey nag maa ngi doxantu ba fii ci Ndindi certifié ki nga xamante ni si moo di ah, Cheikh Seck responsable politique fii ci Touba Mbacké ah balaa may xuuse ci waxtaan bi rek dama koy bàyyi mu nuyoog mbokku mourides info yi koy seetaan. asalaamaaleykum wa rahmatullah soxna Ndeye maa ngi lay nuyu di nuyu waa Mourides di nuyu waa Touba di jiital ci nuyoo bi xalifa général du Mouride Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak njabootu sëriñ Touba gi ñëpp di nuyu waa Touba di nuyu waa département Mbacké mais di nuyu waa Ndindi Serigne Fallou gi nga xamante ne ñoom laa dëkkal maa ngi leen nuyu bu baax di leen siyaare di leen jaajëfal. nuyu bu baax. Mhm. di leen siyaare di leen jaajëfal. Mhm. merci beaucoup Cheikh Seck ci présentation bu am solo boobu nga xamante ni si def nga ko ah ñu ngi ci weeru koor nag bëggoon na ñoo xam en tant que responsable di kilifa naka ngay dundee koor gi ak ah, yan comme que weeru koor weeru ngëneel la ñu wax ah, weer boo nga xamante si weeru jéggale la loo ci ñaan yàlla suñ borom may la ko naka nga koy dundee weeru koor ni ñu koy dundee mooy comme ni ñu ko yàlla suñu borom diggalee rek noonu lañ koy ñooy julli di nekk ci senegal ñëpp ak àdduna bi di wax ne ñu ngi am mbégte lool e, ci weeru koor wi li ñu ko yàlla diggalee ñu fas ne defee ko noonu mu doon weer woo xamante ne weeru mbégte la ndax yàlla suñu borom moo ñu ko sant te ñun jullit yi amuñu loolu ñu sawar ci lu ñu yàlla sant rek ñu ñu defee ko noona kon nag dañuy ñaan rek Euh, bépp jullit lu mu ci jaamu rek yàlla na ko yàlla nangul euh, ñu bokk ko ñun ñëpp euh, fekk ko ati at di ci ñaanal ñëpp jàmm waaye di ci siyaare bu baax ñëpp. merci beaucoup Cheikh ci yooyu réponse am na solo torop ndax mën naa xam yan saar ngay faral di jàng ci koor gi comme que jàngum xasida lañ ciy wax jàng alxuraan. bu ñu bu ñu bu ñu bu ba noppi la def mooy jàng alxuraan ak xasida ñaanal jullit yi. ñaanal ñëpp ñaanal réew mi tamit mu am jàmm ndax réew mi bu amee jàmm ñu ñëpp laamal jàmm nun daal lañ koy defee bu ñu jullee ba noppi dinañ jàng alxuraan jàng xasida ñaanal waa Sénégal ñaanal jullit yëpp nun daal lañ koy defee. tamit am na solo macha allah parce que ay jullit leen te dañoo war a yéenante jàmm kenn ku ne li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom yal na ñu yàlla ak Serigne Touba xiir ci nga xamante ne si mooy lu baax ñu ciy dox saa su nekk. ba léegi ñu leen di fàttali mbokk ni yéen a ngi seen biir émission koor gi ak Ndeye Thiam Saliou gis ngeen sama invité kenn du ko naatable muy Cheikh ah nekk responsable bu mag fii nag du ma dugg ak toog ak moom nag te ah dugguma ci li nga xamante ni si ci lay yëngu Cheikh euh, mën naa xam kañ nga dugg si politique ak lan moo tax dugg si. waaw politique nag maa ngi ci dugg 2012 laa ci dugg li ma ci dugal nag mooy gëm-gëm gëm ne Sénégal ci ñi ko war a doxal euh, ci laa war a bokk te loolu mooy rôle lu sénégalais bu nekk ndax Sénégal mooy suñu réew Sénégal lañu am amuñu feneen kon nag luy suñu taxawaay mooy fexe ba ci li koy doxal ñu dox ca loolu noonu loolu nag moo ñu gën a poussé ñu dugg ci politique mais bu ñu ci duggee ba léegi nag amul lenn lu nga xamante ne ñu ngi ko ciy rëccu ci euh, jàppale suñu askan taxawu leen taxawaay bu mat sëkk te loolu rek moo tax ñuy dugg ci ndax nag biñ ci duggee léegi yàggul ndaw lañ. mais nag ñu ngi sant yàlla bu baax ndax am na fu ñu àgg te fi ñu àgg yépp suñu gëm-gëm ak suñu pas-pas moo ñu fa àggale kon nag ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. leer na Cheikh euh, ñu gis ni que dañ la fekkoon ci ki nga xamante ni si mooy Serigne Cheikh Mbacke euh, Bara Dolly nga doon ànd ak moom ñu gis ni nga bàyyi fa euh, dem ci fi nga xamante ni si mooy di ma di Niang. politique dafa doon loo xamante ne boo dee ndaw di ko def day baax nga am benn mag moo xamante ne moo la jiitu ci politique. bu ko defee nga dem range wu ci ginnaawam dem jàppale ko ndax man bi may dugg ci politique damaa taamu benn part mi parti démocratique sénégalais li tax ma taamu ko mooy président Abdoulaye Wade ñëpp xam nañ na xeexkat la te gis nañ li mu xeexal Sénégal ba Sénégal am ndam ci lu bëree bëri waaye gis nañ bi mu jiitee Sénégal li mu fu def ci réew mi loo xamante ne kenn wérantewul ne liggéeyal na Sénégal ba tey moo ko may jàmm looloo tax fu mu dem ñu respecté ko buy ñëw ci réew mi gis nga ni askan wi di génne di ko teertu loolu lu ñu lu ko may mooy gëm-gëm ak bëgg Sénégal ñun nag looloo tax ñu dem rancé wu ci ginnaawam dem ko jàppale mais bi ñu nekkee nag ci parti bi du jàppale euh, président Ablaye Wade day baax mu am responsable boo xamante ne moo fi nekk moom lañ fa teg parti bi jiital ko bu ko defee nga topp ñu poussé ci ginnaaw Serigne Cheikh Bara Dolly ñu taxaw euh, jàppale ko euh, looloo taxoon ñu ànd ak moom liggéeyal ko liggéey boo xamante ne moom ma ñu àndaloon xam na ne ñun ay liggéeykat lañ xam na ne ñun lu ñu ñor mooy parti démocratique sénégalais ñun lu ñu ñor mooy nu ñuy def fexe ba parti bi mën a jëm ca kanam def ci lu ñu man ak lu ñu mënut ba moom xam na loolu bu baax kon nag yaakaar naa ne su ñu jógee ci moom du ci ñun ndax ñun la ñu war def nañ ko ba mu mat sëkk. si moom yan problème nga fa jànkoonteel ba tax nga jógee. xam nga xam nga politique moo problème ñoo ànd nekk naa fa liggéey naa fa la ma fa war a liggéey comme la ma la wax. man moom li ma lay wax mooy ba may ànd ak moom ànduma ak moom benn condition li ma àndeek moom mooy gëm na ne parti démocratique Sénégal la gëm man ma gëm na ne parti démocratique Sénégal laa gëm ma gëm na ñu ñaar dañoo war a ànd liggéey pour PDS mën a jëm ca kanam ma gëm na ñun ñaar dañoo war a ànd pour pedes mën a soxalu ko mën a fexewaat ba jotaat nguur loolu laa ànde woon ak moom doon liggéey ak moom man nag li ñu nekk nekk ay xale wax dëgg yàlla am na lu nekk ci ñun mooy am nañu fula am nañu gëm-gëm to ku ñi and ak yow gëm-gëm lañu and ak yow way duñu and ak yow ak ñak fayda ba ñu démé nak bu gëssatuñu suñu bop ci and ak mom ñu génn euh, jëlaat wenen yoon parce que loolu moy politique waaw. lan moo tax gisoo dem nga dem ba dernier moment gissato sa bop ci mom lan nga fa gis ba tax nga juggé fa dem ci maître Madické Niang. waaw xam nga politique mom comme nga gis euh, ci mbir ci sa bop loolu yaakar naan du yow yaa koy wax waye nit ñi nga xamantene ñoo yor seeni bëtt di xol ñun ñi nga xamante ne ñoo la xam ci terrain politique ñooñu ñooy xam ci li nga nekk am nga ci avancement wala amoo ci mais ñun suñu politique ñun rek nit ñi am na ñeneen ñoo xamante ne ñoo ñuy xelal ci lu bëree bëri ci wàllu politique ñooy xool suñu doxalinu politique ñoo ciy segg lu nekkul yoon ñu xool nan lañ koy seggee ba mu jaar ci yoon ñu digal ñu ko ñu koy def te ñooñu ba ñu dalee ànd ak ñoom ba léegi lépp lu nga xamante ne ñu ngi koy xelal ak di ñu ko digal ñu ngi koy def mais njariñ rek lañ ci gis loolu nag kii lañ di ne kii la ñu nekk doomu aadama boo ne sa xel rek doy na la chaque jour da ngay juum da fexe ba ànd mbooloo moo xamante dinañ la man di la xelal dinañ man di la conseil di wax loo xamante ne buñ la ko waxee dinañ xam ne ne yow mi lii ñu lay wax yaa ngi koy jëfee waaye yow mi ñu koy wax nga koy jëfee xam nga ne ñii li ñu lay wax amul pertement njariñ rek moo ci nekk xam nga ne ñii li ñu lay wax amul njariñ rek moo ci nekk mhm. jërëjëf Cheikh ci yooyu leeral am na solo torop ñu gis ni que dem nga ba euh, ginnaaw Cheikh Mbacke Bara Dolly mi nga booti woon nga jóge fa dem ci Madické Niang ñu gis tamit nga nekk ci dem ci ki nga xam xamanteni ci si mooy mi lu waral nga jóge tamit ci maître Madické Niang président Madické Niang boo li tax ma andon ak moom gëm-gëm la won parce que bi élection yi euh djubsé wona ma téléphone waxtan ak man nama xex seex bu ma nekk mooy parti démocratique sénégalais am xex bo xamanteni ne si mun ko fa ta xex bo bëgg na mu continuer jëm ci kanam moy Karim Wade mi nga xamanteni jël nako xagn ko ay Macky Sall jël na ko génn ko réew mi te tigu ko ci lenn ngir tey jii élection yi ci gañeen wu yomb yi nga xamante ne gañee na ko foqarte ko ci askan wi loolu la ci bëggoon te xam na ne Karim bu bokkee ci élection yi loolu mu bëgg du ko mën a am mu fexe ba wut lu mu ko taqal wut lu mu ko tuumaal gàkkal ab deram ba fexe ba génn ko réew mi ko ci dëgg Karim Wade génne génn génne nañ ko réew mi te génne guñ ko génn réew mi amul lenn loo xamante ne tege na ci yoon ndax Karim liggéey na ci Sénégal liggéey bu rëy boo xamante ne la waroon mooy ñu sargal ko te xam na ne liggéeykat la waaye nag du lii ñu nga xamante ne moom la ñu ko fayee tey ñun nag ca xeex boobu lañ nekkoon doon ca xeex ma président Madické bi mu ñu woowee nag na moom bëgg nañu jàppale ko ñu waxtaan ak moom ci loola noona moom nag mu gëm na ne moomit it li tax mu doon candidat xam na ne Karim dañu ko jëmale PDS soqali ko looloo tax amul benn condition bu ñu koy tegal lu dul mooy Karim Wade na ko delloo ay àqam yi nga xamante ne Macky Sall jalgati na te tegu ko ci benn droit jalgati na te tegu ko ci yoon lu dul jaay doole ñu fexe ba jël loola ñu delloo ko ki nga xamante ne mooy Karim Wade looloo tax ñu ànd ak Madické te ba ñuy ànd ak moom loolu rek moo tax ñu ànd ak moom. ku gisoo loolu tamit nga daal di génnaat. avant ma ciy dugg. wàllu parrainage bi booba mooy jot ndax yaakaar naa ne kuy ànd ak nit taw leerul la ne kii ngay ànd ba xam parrainage am dina jàll wala du jàll kooku gëm-gëm te ne ma dikk jox na ma ko pour ma ñëw ànd ak moom un franc ma dikk laa parrainel wutal ko parrainage bu mat sëkk jàppale ko def ko ci samay moyen bopp te ma dikkee am na ñoo xamante ne sonal nañ ko ci ay moyen dem di ko sonal di ko topp jox ñu nangam ñu pare parrainage la man nag laa juma ko un franc damaa jël samay moyen bopp wàcc la liggéey ci wàllu parrainage def ci la ma ca war a def ba mët sëkk kon nag kooku yaakaar naa ne ba may ànd ak moom gëm-gëm laa àndee ak moom mais bi ma duggee ci coalition bi gis naa ci ñoo xamante ne li leen ñor mooy seen bopp li leen ñor mooy lu ñu def seen poche mooy ñu nekk ci coalition Madické rek ñoo xamante ne ñoo xamante ne ay dóorkatu martu lañ ñooñu ñëpp xam nañ leen xam nga luy problème bi mooy daanaka tuddul tur bi da koo jurul waa jurul may cité ay tur naan diw wala diw la waaye ñi nga xamante ne ñooy askan wi te ñu dëkk fii wala Madické Niang moom nga xamante ne moom lañ doon jàppale tey xam na ne ñii mu ko seqaloon du waaja ñii mu ko seqaloon ay dóorkat lañ ñii mu ko seqaloon du ay liggéeykat ñii mu ko seqaloon li leen ñor mooy seen bopp te nag loola la ñu wane tey ba ma dikke lañ doon wax naan ma dikke dina gañe feet dina fi am nangam ma taxaw xamal leen ne leen yoon wii ngeen jël du may may ma dikke ndam fii ci département bi yoon wii ngeen jël mooy delloo ginnaaw ma dikke ci département bi te na ma leen ko waxee ba ma leen koy wax jàppal nañ ne dama koy wax wala leneen ak leneen mu dëkk fi di fi yeewoo ba pare ma dikke mënul am dara Touba kon nag war naa xoolaat toogaayam waaw foofu biir biir ba mu wootee sax dañ ko faa gañe te li war a loolu mooy ñi nga xamante ne ñoom la àndaloon doon politique ñooñu ñoo ñoo ko waaja ñooñu ñoo ko du liggéeyut ñooñu la ñor mooy seen bopp te man nag sama politique tey li ma tax askan wi respecté ma li tax askan wi jox ma cër loola noonu duma gis lenn loo xamante ne dama koy yàqal may nekk ca loola noonu la may def mooy li tax askan wi naw li tax tey bu ma génnee ñëpp na Cheikh Seck ni ñii di ma nuyu di ma sant di ma gërëm te ñoo xam loolu li ma koy yàqal du ko nangu su ma xamee ne ñii ay dóorkat lañ su ma xamee ne ñii li lay ñor mooy seen bopp la may def mooy bàyyi leen ñu dem dóori seeni dóor man ma roccee ko ndax bëgguma ëllëg kat gàcce di ci am ma cay bokk ah, ndax su ma déggee say wax da mel ne li la jege li lay jëlee ci Cheikh Mbacke Bara Dolly moo la jëlee ci ki nga xam ne mooy maître Madické Niang. waaw xam man ni nga man ni may politiquer mooy fu ma mën a nekk dëgg rek laa fay nekkee waaye su ma fa gisul dëgg googu noonu dama cay teel a rocceeku. Ah, lañ fi war a jëlee te li ko fi mën a jëlee mooy en tant que ñun ñi nga xamante ne ay ndaw lañ. dëgg ak jubal fexe ba sa askan wi nga xamante ne ñoom nga ne ñoo la tax a jug nga fexe bay teg ci seen loxo lu wér loo xamante ne ci ak jub la ak jubal ñu xam ne ne yow mi amal nga leen njariñ yow mi yaa ngi leen di taxaw waaye politiku dóor martu politique gu wax lu doonu dëgg ngir fexe ba jariñu politique boobu noonu dañoo war a fexe ba mu jóge fi te xeex ba mu jóge fi nag li ñu koy may mooy en tant que ndaw ñi nga xamante ne ñu ngi ci politique ñoo war a defalaat loola fexe ba ñi nga xamante ne politique dóor martu ak naxaate ki lañ ko teg ñu fexe ba jëlee leen fi ñeneen ñu ñëw jëlat seenu politique bi bo euh, ma ma gis ni que élection yi passé na campagne oo defoo dara Cheikh ban leader nga andal fim toni wala ando kenn. wa man mom xam nga dama nek parti démocratie sénégalais parti bi nak dem euh, bi mu am momo may tay ma demoon jàppale ma di ko ñaan bi ma demee jàppale ji ko. wax la lola nga xamante mom la la wax la ma fa gis ma xam ni ñi duñ ay liggéey kat lama def moy togat bu baax waxtaan ak ak samay nit waxtaan ak sama base politique di toog di dégloo waaye maa ngi ci parti démocratique Sénégal te musuma génn ci parti bi waaye maa ngi toog di liggéey comme na ma daal liggéeyee ndax man sama politique doon na dama ko aj ci parti rek man sama politique dama koo teg ci askan wi nga xamante ne ñoom laa dëkkal dama koo teg ci askan wi nga. instant bi nga toog nii fi mu toll nii choix woo kenn koo nga xamante ni si am nga yéene ànd ak moom pour liggéey. waaw non man moom wax dëgg yàlla mosumaa nekk fenn jóge fee nangam nag màkk jekk ba ma dalee politique ba léegi benn parti laa nekk muy parti démocratique sénégalais falaa laa ma Madické Niang bi ma koy jàppale moom mi ngi ci parti bi comme man ba mu di démissionné na bàyyi na parti bi taxul man ma bàyyi parti bi man maa ngi ci parti bi liggéey su ma demee ba gis loo xamante ne nag jaral na ma ma bàyyi parti bi boobaa dinaa taxaw na leen génn naa parti démocratique sénégalais. ci yooyu leeral am na solo trop Cheikh euh, ñu gis ni que local yaa ngi ñëw ndax mën nañ xam ba xam Cheikh ak ay ay ak partem euh, taxaw nañ pour poser poser candidat wala. waaw nekk conseil. waaw xam nga élection waaw élection locale yaa ngi ñëw man conseil départemental la. parce que maa ngi euh, dugg ci liste PDS 2014 si laa jàll doon conseil euh, élection yi mi ngi ñëw ku ci ne am na ñu jug na ay candidat lañ mais am na ñu bëree ñoo xamante ne waxaguñ ne ñoom ay candidat lañ te gëm nañ ne ñoom war nañoo mën a doon ay candidat parti bi ma nekk tamit dégguma ñu wax ci dara. tuñ ci ay gone politique ne la ci boo déggee mën a doonuñ ci ay gone ne la wutuñ mooy politique. lépp lu nga xamante ne mooy wàllu expérience ak luñ ci mën a xam lu ci bëree bëri xam nañ ko ci bëri parce que politique léeg-léeg dara dal la ci mais dalay yee ci lu bëree bëri ñun nag politique dafa bëri loo xamante ne dal nañ suñu kaw ci wàllu politique sant yàlla lañ ci def ndax yee ñu ci bëri ñu xam bu baax suñu ni ñuy doxee ñu xam bu baax fu ñu teg suñu tànk ñu xam wan taxawaay lañ war a am ci terrain politique bi te taxawaay boobu am nañ ko ci ba mër sëkk ñu dégg que ne bu yàggul dara rek sëñ soin bu mbàkke mi ngi doon wax naan eh, président Ablaye Wade moo wor askan wi ba tax eh, maître Madické Niang ak ñoom ñoo liñ fa waroon am lépp amuñu ko fi lan ngay wax ci loolu waaw Ablaye Wade warut kenn Ablaye Wade dafa doon mag moo xamante ne li war ku nekk sénégalais bu nekk mooy sargal ko li wa li war ku nekk kuy sen yeboo Sénégal mooy nga sargal président Ablaye Wade koo xamante ni dundam gépp da koo jël jeexal ko takk ci liggéeyal Sénégal ci sonnal ko ci bëccëgal ko ci léppam kon nag kooku lu war sénégalais bu nekk te tey am na dund wu ñuy dund tey am na nu réew mi men tey Sénégal am nañ fu ñu ko teg tey Sénégal am na beneen bët bu nga xamante ne doon nañ ko xool te xoolee te bët boobu loo tax ñu waral loolu mooy président Ablaye Wade liggéey bu mu liggéeyee Sénégal lim ci xeex ci ndawam. ba ni mu nekkee mag ba léegi nii bàyyiwul lépp ngir Sénégal mën a ñoŋ mu Sénégal mën a jëm ca kanam loola yaakaar naa ne benn Sénégal wóorta taxaw naa Ablaye Wade dafa taraayil Sénégal wala nangam ndax ab Ablaye Wade yaakaar naa ne 27 ans opposé wu na ko te coone bu ci metti bu nekk ja dañ na ko ci waaye taxul mu bàyyi. taxul mu découragé wu ngir liggéeyal Sénégal te liggéey bi mu liggéey Sénégal tey ji bu fekkee ne ñaari at la ko jiite sax tey gis nañ ci gis nañ ci coono bi waaye gis nañ ci njariñ li nga xamante ne moo ci nekk en tant que sénégalais tamit yeewoo ci biir réew mi kon nag li war mooy sant ko gërëm ko sargal ko loolu mooy li jaadu te sénégalais bu ci nekk foofu lañ lay séentu. trop euh, lan mooy sa ambition ci politique en tant que jeune. waaw sama ambition ci politique nag ginnaaw gëm-gëm bi ñu ci am suñu askan. ba suñu askan xam na ne ñun politique bi ñuy politique wuute naag politique yu bëri suñu askan xam na ñun suñu bopp ñuru leen ñuruñu mais li ñu ñor mooy askan wi mooy ñu politique politique boo xamante ne dinañ xam ne ni ñun ñu ngi liggéey ci liggéey boo xamante ne pour suñu askan mën a jëm ca kanam suñu departement mën a jëm ca kanam fu ñu dëkk ñu soqale ko pour mu mën a jëm ci kanam parce que Touba war nañ fee mën a liggéey lu rëy rëy parce que tey gis nañ Touba li nga xamante ne mooy li fi nekk. ndax Touba bëri na quartier yoo xamante ne tey boo fa duggee lëndëm na lëndëm ngoo xamante ne nga dugg ci marché Ocass nga gis fi mbalit moo xamante ne kenn mënu laa wax ni mu toll tey jii ni Touba li mu waroon a soqaliku li mu waroon a jëm ci kanam ci wàllu ay làmp ak ay télé lu ci bëri des na ki nga xamante ne moo fi nekk di mairie bi liggéey bi mu war a liggéey ak jege gi mu war a jege askan ak ni mu leen war a taxawu mu am lu bëri loo xamante ne des na ci loola noona kon nag li ñu bëgg mooy ñu taxawu askan wi lu ñu bëgg mooy ñu liggéeyal askan wi loo xamante ne ba abadan askan wi fu ñu mën a jaar bu ñu demoon ba yàlla def ñu ay mag dañ koy ñaan yàlla ba ñu yor suñu bant di sukkur sax ñu xam ne ni ñun ñi am nañ luñ leen liggéeyal ñun ñi ñu xamante ne ba ñu toll ci politique defal nañ leen lu rëy ñun nag gëm-gëm boobu moo ñu bàyyi ci politique looloo tax ñu ciy rey suñu bopp liggéeyam dafa des loo koy conseil mairie bi li ñu leen wax mooy ñu bàyyi seen caaxaante liggéey ab dëkk bu toll ne Touba kenn du ko yor nga nekk maire bi war a liggéey askanu Touba dañu leen a war a jàppale fexe ba marché occas bii nii tey boo fi duggee da xool ndaw ña fa nekk di liggéey coono bu ci ne la ñuy daj di lal ci kaw tëli bi sareet yeeg oto yi kon di jaar seen kaw bagage yi te li wara loolu mooy mairie bi ñàkk a taxaw li jëntigu leen yëgul ne amilaay coono bu metti booba sax ña ngi ko fay daj waaye coono boobu ñu ko fay daj jittelu leen soxalu leen te loolu doon róolam loolu doon taxawaayam ba ñu koy fal dañ koo fal pour jafe-jafe yi nga xamante ne askanu Touba ñu ngi koy dund ci seen marché bi di ko dund ci wàllu yoon ñu ngi koy dund ci li nga xamante ne mooy mbalit mi ak dëkk bi cet gi mu waroon a set ñëpp xam nañ ne loola sooxe nag kon nag foofu lañ koy séntu mu liggéey fi mhm. ah jërëjëf ci yooyu leeral xam naa boobu message moom mairie bi dina ci jot incha allah rabi te dina ko bàyyi xel looy tàggu askan murit info yi lay seetaan waaw li ma leen tàggoo mooy ñu ngi leen di sant ñëpp di gërëm askan wi di am mbégte lool ci ñoom eh, di sant waa Ndindi Serigne Fallou eh, di leen gërëm te di leen jëfal lu bëree bëri di wax ne eh, yàlla def na ñu fi nekk di politique waaye politique bi ñuy politique ñun di doon na politique boo xamante ne rafet na lool parce que ñëpp la ñu seqal jàmm mooy ñi bokk APL dañuy seq ak ñoom jàmm euh, fexe ba rafetal lépp ku ci ne bu élection jotee nga dem bayi sawar ndax mu safaa Seck PDS mais ñëpp gis nañ joxasoo gi nga xamante ne am nañ ko waaye loolu lépp nag gëm-gëm. ak ak ak ak ak xeex bu jotee ku ci ne dana dem xeexale fa nga xamante ne fa nga féete ñuy wax ñëpp rek ñu gën a rafetal affaire yi te xam na ne ku ci ne booy politique na sa askan tax te sa bopp bañ a tax kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm Euh, di di di sant bu baax euh, Mame Mor Sarr mi nga xamante ne mooy secretaire général UGTEL ak membre UGTEL yi nga xamante ne ñoom ñëpp la bokkal di liggéey di ko sant ci liggéey yu am solo yi nga xamante ne ñu ngi koy def bu baax a baax ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant euh, soxna Ndey ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom nga àndal ci liggéey bi Serigne Mbacke ñu ngi koy sant moom it bu baax di ko gërëm ak taxawaayam bu rafet bi nga xamante ne mi ngi koy taxaw waaye di sant ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi leen di topp di leen seetaan ndax ñun ni leen nit ñi di topp toppee di leen seetaan ñu nit noonu lañ leen toppee di ndax seen liggéey rafet na am na solo te ñëpp rafetlu nañ ko. merci beaucoup Cheikh ci euh, invitation bi tey kontaan nañ ci trop vraiment parce que yow it yombalal nga ko amuñu ci benn jafe-jafe dalal nga ñu macha allah te teral nga ñu macha allah ñu ngi lay remercier bu baax yow tamit waa Mourides Info ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax merci beaucoup jaa jëf mbokku téléspectateurs yi nga xamante si yéenay suivre seen site Saliou gis ngeen sama invité tey jàpp naa ne kenn dootu ko naatable muy Cheikh Seck gis ngeen waxtaan bu nga xamante ne si bu am solo bi ñu sekkoon ak moom ñu ngi koy jaajëfal bu baax di leen remercier yéen ñi nga xamante ne si yéen a toogoon di ñu seetaan noonu lañ koy ànd ak yéen saa su nekk ngeen di ci ànd ak Ndeye Thiam Saliou ñu ngi leen di jox rendez-vous dig daje suba incha allah rabi ci beneen invité jaa ngeen jëf merci beaucoup